nekk candidat mhm. notamment Karim Wade dama bëgg nga résumer ma ko parce que problème mu temps rek laa am euh, le cas Khalifa Sall itam mhm. euh, dégg nañ ko comme comme candidat taxawu Sénégal mhm. euh, dégg nañu par exemple ku mel ni Aminata Touré waaye du moom rek am na ku ñuy wax Aminata Babacar Amin Anta Ngom itam bokk na si cest à ñooñu boo ma leen doon jàngatal ci course bi nga xam ni nekk nañu ci mais am na ku ma bëgg aussi nga bàyyi ko xel parce waxagul dara dégg nañu ku mel ni daaw Daouda jàll mu wax mais Mohamed Boun Abdallah Dionne mhm. déggaguñu boobu ba léegi mu wax dara mhm. moom itam waaw Mohamed Dionne moom information yi ma am mooy bëgg na dem mhm. bëgg na dem bëgg na dem mi ngi def ay pexe pour dem maintenant nag est-ce que relation yi mu am ak Macky parce que vraiment li ma xam ci moom mooy loyauté ci Macky Sall honnêtement. Euh, dafa am sax lu ma frappé moom boo waxee moom moo bos moo bos moo bos rek lay wax. Mohamed booy wax moom sax day jël note. comprendre nga loo ko wax mu toog ak Macky Sall <laughs> rendre ko compte comme ça qu'il fonctionne donc bëgg na dem. waaw parce que mi ngi wax ak ay nit. te na ay chance aussi mi ngi lal mbiram mi ngi voilà maintenant. nan lay mujjeek ak Macky Sall loolu mooy problème bi est-ce que bëgg na dem te bëggul aussi. yàq diggante non non non bëggul aussi topp ci ginnaaw Amadou Ba loolu moom mu leer moom bëggul topp ci ginnaaw Amadou ñaar yëpp mi ngi ci moom bëgg na dem bëggul topp ci ginnaaw amadu Ba maintenant est-ce que dina mën a bëtt Macky sàll pour dem loolu mooy wax ci d'accord. ban pression la maître Macky Sall def ci moom et puis est-ce que dina am force surmonter pression boobu pour dem te ki Sall bëggul mu dem. d'accord waaw loolu mooy loolu mooy wax bi. ok voilà wax naa la ku mel ni Karim.